sakartu li annahu xat saaxani li watanin bi nafa maaxani waxaadani lay bi taxalli min baadi ma xasaba bi taxalli wajalani fi ilal ulumi wal fawsa bil amali bil maalumi summa salaatu bi salaamin tabia ala lazi xasdiyan atabia ala lazi man bi maradi iqtada fi sirri wal jahri yakunu muhtada huwa lazi haajarani lmadina bi amri rabbihi fasaana diina wasilati li maliki lafii muhammadin xayril wara safii wa ali wa sahbihi nujumi alxayri nufuusi warrajimi haza wa inni lyowma ya wa abu xayraka fi daarayni la ahaabu وينني يا بر يا كريم داع عن سكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفودا مسلما إليك أمري مهاجرا بما لديك ثم إليك لا إله سواك xat sirtu lamma lam ajid sarwaaka tatagal suñu mbokk mi nee noo ngi tatagal suñu mbokk mi sëriñ xaadim mbàkke moom sëriñ jiili kawlax kawlax moom Serigne Mor Bil. sa Kawlax ñu ngi koy nuyu bu baax. nee Serigne Khadim noo ngi lay nuyu bu baax. si turu Serigne Moustapha. te di la wax ne. te di la wax ne. ñëw nga sa kër. nee ñëw nga fi nga ñëw. nee fi nga ñëw. mën nga fee dalale. nga fee mën nga fee yeewee. mën nga fee ndax fii sa kër la. ni rek. nee ni ñu bi jure rek. nee noonu la la jure. moo nee moo tax bi nga ñëwee. yaakaar ji am ci yow. yaakaar ji nga xam ne am nañu ko si yow. ba def la ni la def. ba def la ni ñu la def. si gouvernement bi. si gouvernement bi. nga nee nga bëgg. am yéene joo am. am yéene joo am. si premier ministre. si premier ministre. yéene jooju nga nee yéene jooju nga am si premier ministre. nga ñëw fii si pëfti. nga ñëw fii si pëfti. sukk say tànk. sukk say tànk. si sa kanamu baay. si sa kanamu waajur. sa maam. sa maam. di ko sàkku. nee di ko sàkku. sëriñ bi nee na. nee sëriñ bi nee na. fii daal la am. fii rek la am. ku ko fi fekk. ku ko fi nee loo nekk mu nga sa. nee koo xam ne fekkoo ko fi. lu ne moom xoolal ba nga waaye moom nee daal ku fi ku ko ku si ba fekk ko fi du ko yemale ku fi ñëwut. Mhm. moom nee moom nag sëriñ bi. am na lu muy sàkku. nee sëriñ Xaadim mii am na lu muy sàkku si ak ñittam moo tax tànkam moo waral tànkam yi. lii nag du nee lii nag du ak njëkkam. waaye ñëwinu tay wi. wi. nee ku ko gis xam ne aw ñëwin la. waaye bu njëkk. waaye bu njëkk. daaw ak la daaw ak la sa topp. bu daan ñëw. bu daan ñëw. day xëy suba ñëw. day xëy suba ñëw. ànd ak ñun ba guddi. waaye tey jii nag. waaye tey bi ñu ko jox. moo tax mu ne day xëy. nee moo tax mu ne day xëy. jóge Kaolack. jóge Kaolack. ñëw fii. añandoog ñun. daal di ñu yolomal ko. nee ak délégation bi mu àndal yëpp ñu yolomal ko. mu daal di delluwaat Kaolack mu daal delluwaat Kaolack. nee sëriñ bi yéene jooju la suñ xaadim andi woon. di sàkku ak ñaan. nga ñaanal ko bu baax. ñaan gi koy ñaanal ñu teewlu. nee ñun loo ñu yéene ñun. yéene nañu ko ko moom. ndax suñu xarit la. ndax moom suñu xarit la. fi mu nekk si Dakar. ñoo moom ñooy nekk. ñoo moom ñooy nekk. 24 heures ñooy nekk. lu mu nekk xam nañ ko. lu mu nekk ñu nit xam nañu ko. nee kon boog noo ngi lay wax ne. ak mbokk yi fi nekk yëpp. ñu ñaanal ko moom. nit ku baax la. taala wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi si nuyu ñëpp. Serigne Moustapha nee na mbokk yëpp mi leen di nuyu. Eh, di siyaare. di leen siyaare di leen dalal jàmm. di leen dalal jàmm. di leen yaatal. ci pàkk pàkk bi ngeen ñëw. ci pàkk bu sell bii ngeen di Touba Pofdy. di Touba ah, am mbégte bu baax. di am mbégte bu baax baax. ci ñëw gii fi sëriñ sunu doom ji sëriñ Xaadim ñëw. ci ñëw gii fi doomam ji sëriñ Xaadim ñëw. nga xam ne juróom sama xarit la. nga ne waa juróom xaritam la. sama lépp la. di léppam. man bu laa ñëw di ñëw yi nu doom. sëriñ xaadim bu daan ñëw ñëwinu doom. ay at. ay at. ren ji yàlla dogal mu am lu mu lu mu bëgg ak lu mu jiite. ren ji yàlla dogal mu am lu mu bëgg am lu mu jiite. mu ñëw fi weneen ñëwin. ñëw fi weneen façon ñëwin. moo tax dañ danañ ko jàppee weneen jàppin. sëriñ Moustapha nee na danañ ko jàpp weneen façon jàppin. ndaxte ñi ñi ñi ñi ñu ngi koy séentu ci ñoom ñëpp. nee na ndax ñëpp ñëpp ñi nga xam ne dañ koy séntu ci ñoom. moo leen ci gën a yey. moom sëriñ Xaadim mii moo leen ci gën a yey. ñu ngi koy ñaanal mu amee ko ni mu ko bëggee. nee na ñu ngi koy ñaanal ci barkeb sëriñ Touba mu amee ko ni mu ko bëggee. ak jàppale ko ci itam. ak jàppale ko ci itam. kem suñu kem kattan. suñu kemtulaay kattan. ndax ndamam mooy suñu ndam. ndax nee na ndamam mooy suñu ndam. ndax ndaw la lu ndaw la lu ñu yónni. ndax ndaw la loo xam ne dañ ko yónni. te yàkkamti ko. te yàkkamti ko. yàlla bu ko pakk fel. yàlla bu ko benn pakk fel. akum ndok. akuk bokk. akuk akum ndok. akum ndok. yàlla bu ko ci dara dal yàlla bu ko ci dara dal na yàlla na àgg new yoon yàlla na yegg new yoon barki yonent bi ci barki yonent bi barki Seexul Xadim ci barki Seexuna da nga ci am ndam insha allah sëñ Moustapha nee na lii ngay jublu loxo yi dafa girib tey ji dafa girib waaye bis bi xam na ni chaque année maire mooy ñool boppam waaye bis bi xam na ni ñool ne léegi sëñ Axma mi mu fa yónnee léegi maam Cheikh Ka. maam Cheikh Ka. ak adjoint maire. ak adjoint maire. Serigne Babacar Mbacke. Serigne kon loolu mooy wane ni. kon loolu mooy wane ni. bis ñor na maire bis na maire lool. li xew ci dëkk bi rek. li xew ci dëkk bi nag. sëñ Ndiir bu ko waxee da koy def 100 pour cent. sëñ Ndiir bu ko waxee maire da koy def 100 pour cent. bi ñuy bëgg a màggal. bi ñuy a màggal. maire fi defar lamp yi. maire ñëw na fi defar lamp yi. xool fi war a régler lépp. a régler mu régler ko. te loolu moom moo ko mi moo waral. waaw kon sëñ Ndiir ñu koy sant. kon personnellement Moussa Thioune. nee na man personnellement nag BDG Moussa Thioune. kontaan naa ci kontaan naa ci moom. ndax digganteem ak Soxna Bali. ndax digganteem ak Soxna baali yor na képp yor naa tax ñu oh, nee na digganteem ak Soxna Bali rek war naa tax ñun ñu jàpp ko. ndax gis na ni mu def Soxna Soxna Bali. ndax gis na ni ñu def Soxna Bali. def ko kilifa def ko kilifa. def def ko waajur. te noonu mu ko def. noonu mu def soxna Bali. doomi soxna yëpp. doomi soxna yëpp noonu lañ ko rafetloo. ndax moom moom lañ ko war a def. moom lañ ko war a def soxna Bali. ndax soxna Bali day nit ku baax. ndax soxna Bali dafay nit ku baax. ku mën a taxaw nit. ku mën a taxaw nit. ku mën a sargal nit. ku mën a sargal nit. kon soxna Bali moom. kon soxna Bali moom. jiili moom. Serigne Jiili moom. lu am solo la fay def. lu am solo la fay def. di jottali mbokk gi. di jottali mbokk gi. di defar diggante yi di defar diggante yi. di jottale. di ko sant di ko gërëm. nee na ñoo ngi sant di ko gërëm. di santaat bu baax. nee na ñu ñuy santaat bu baax. Serigne Makhtar Diène. Serigne Makhtar Diène kuréel social. comme jiili yóbbante na ay cant. nee na comme Serigne jiili yóbbante na ay cant. ci Abdou Aziz. ci Abdou Aziz. waa loolu danaa ci yokkaat. waaye nag nee na man dinaa ci yokkaat. ndax Serigne Makhtar. ndax Serigne Makhtar. man mii ngeen wax. man mii ngeen wax. sama doom laa sama doom laa ko jébbal ma ngi fay jàngee. bi ma tuddee sama baay. bi ma tuddee sama baay. jikkoom nag moo ma doy. jikkoom nag moo ma doy. ak taxawaayam ci dëkk ci dëkk bi. looloo ma jébbal sama doom. Tuubaa ñëwaatoon jamono nee na ndax nee naa ko bu sëñ Tuubaa ñëwaatoon ndax li sëñ Tuubaa santaane lépp doo ca kon sëñ Maxtaar Jenn moom kon sëñ Maxtaar Jenn moom gàccaa ngaalaama gàccaa ngaalaama képp kuy nit ku baax képp kuy nit ku baax yor nga kaa jàpp war ngaa jàpp sëñ Maxtaar Jenn ndax ku jàpp Tuubaa la ndax ku jàpp Tuubaa la kuy defal doomi waa Tuubaa kuy defal doomi waa Tuubaa la te lu xew te lu xew lu baax ci baax da nga ko ci gis lépp loo xam ne ab safaan la loo xam ne ab safaan la doo ci gis sëñ Maxtaar kon sëñ Maxtaar yàlla na fi yàgg ngi yemale foofu suñuy kàddu ñoo ngi foofu suñuy kàddu. di sant ñëpp di gërëm di sant leen gërëm. Serigne Djily dafa wax ni. fi Moussa daanele ay kàddoom. foofu lay jële ay kàddoom rek sos ko ci. ndax dafa bàyyee léegi. axma yaa ngi jël li may wax Abdou Aziz Serigne Djily dafa wax ni. fi PDG Moussa Thioune bàyyee ay kàddoom. foofu rek lay sosee ay kàddoom muy ci jigéen ju baax jooju mu wàccee ay kàddoom léegi muy soxna Baali Muntaxa nee na lépp loo xam ni waru na ci bis bi rek soxna Baali def na ko nee na dara manqué wul lépp loo xalaat rek soxna Baali Muntaxa def na ko soxna Baali nag loolu la dëkkee ak ñun soxna Baali mën na nitam mën na xaritam mën na dëkkandoom mën na àndandoom waaye nee na bu jugee ci loolu PDG Moussa Thioune nee na mi ngi lay sant nee na ñëw fii yombul te si njil neen fii ko fekk rek yamale wala ko ko fekkul délégation yi fi ñëw yëpp tey subaak léegi benn baat bi rek ngay dégg mooy fii ko fekk du ma la yamale ko fekkul te loolu loolu gëm loolu mooy dëgg ci moom kon nee na yow mi ngi lay ameel cant mi ngi lay ameel ngërëm lépp loo xam ne jotale na ci digganteem ak Abdou Lahad Ka rek yow mi yaa ko jotale ndax nee na nag boo xataloon mu xat waa xataloo dara da defar lépp nee na moom loolu moo ko war moo ko waral moo ko waral nee na ñu ngi lay sant bu baax te la gërëm nee na nit nga koo xam ne yor nga ay liggéey yu état waaye fii na nag lépp nag. bàyyee na ko bàyyee na ko. ngir sunu jëm. kon noonu neen loolu rëy na ci moom lool. ñoo ngi lay sante nag. noon lay sante mbokk fi jaar yëpp. ku mel ni si Cheikh Mbaye Gueye di ku baax. koo xam di koo xam ne. jëf na jëf jii jëf na fi jëf yoo xam ne. jëf ju la. te suñ jëm rek moo ko waral. ñoo ngi koy sant bu baax. di ko gërëm baax jërëjëf. benn ba mooy. Abdou Aziz. sa sëriñ. sëriñ Basiiru Mbàkke xaadimaaw ba. nee na Aziz sa sëriñ. sama nijaay. sama nijaay. Serigne Bassirou Mbacke. Serigne moom Serigne Khadim Awa Ba Gaynde Baara. Gaynde Baara. di nit ku baax. di nit ku baax. la jógee. ngir bis bi. te bi mu waneewaat gannaaw. lay dellu. te loolu ko waral. suñ jëmm ñaar. moog sëñ Abdou Fatah mi. day maye ay terrain. ne kenn laay may. ne kenn laay may. muy sëñ Abdou Fatah mu baax mii. bi ma ko waxee ne ko ah waa bi. ma ko waxee ko ah sëñ bi. mu ne sama xarit. mu ne sama xarit la. daal ne sama sët la. waaye sama xarit la. ñun lu dul looli tamit. jàpp nañ ko moom. jàpp nañ mi. ndax jikkoom. nit ku baax la. du du jëw. maanaam moom loo ko mën a séen rek. mën a séen rek. ci programme boppam. ci farata ak boppam rek waaye du nekk ci nit. waaye moom day du nekk ci amul jot. kenn nit ku kenn ku nit koo xam ne bu fa daa day nekk ci moom rek. cib deram cib deram amut. moom kay foo ko fekk. ci ay activité am lay nekk. dañuy nekk Dakar. nekk Dakar. am kër gu ñu nekk. ñëpp benn baat bi lañ. ñëpp benn baat bi lañ wax ci moom. buñ ko waxee. ak bi mu dikkee. ak bi mu matut 15 minutes. maanaam bi mu dikkee. bi mu dikkee. ñu ne ko sëñ du da ah doon nañ la jëw. mu daal di ree. mu daal di ree. laajul lu ngeen ma doon jëwee. laajul lu ngeen ma doon jëwee. ñu leeral ko lii. ñu leeral ko wax ji. mu daal di ree. mu daal di xam ne ku baax la. ci xam ne moom day nit ku baax la. lim bëgg tamit. lim bëgg tamit. ñun day danañ ci def suñu kéemtalaay kàttan. lay xam nañ ni. ndax xam nañ ni. lii mu nekk moom. ñun buñ ci nekkoon. moom itam noonu lay def. ndax nit ku nekk rek ndax nit ku nekk rek. da ngay jël ab seetu. sëñ Fada seetu la. ku xool sa bopp rek ngay gis. nit ku baax a ngi nii. moo tax tamit. lépp lu nekk rek ñoo ngi ci. nan ko ñaanal bu baax. ñaan gi nag. day ànd ak ay sabab. muy jël carte bi rek. moom carte bi boo ko defee moom. xam carte bi nga xamante ni moo koy yóbbu assemblée nationale. nga jël carte boobu. daal koy defee ni ko war a defee rek. loolu mooy sabab bi loolu mooy sabab bi. waaw kay ci heure génn ndax démb ci heure bi ñoo ngi ci yoon wi jóge bitim réew tey laa tey laa ñëw fii laa njëkk a ñëw nee li ñu wax rek mooy dëgg fekk fi samay bokk kese rek samay maam samay baay samay nijaay sama lépp. sant rek laa def bu baax ndax sëñ Jili Mbàkke mii day sama wëllëre lim wax ci baayam bi may jox terrain yooyu daawoo sëfër bi ba mu ñëw damaa bëgg nga doon ci seere ndax ëllëgi sibir bu sama doom muy sama doom muy kum mën a doon bu ci bëggee wax benn baat nga xam ne lii man maa ko defoon su ma ci génnee ba ma ca génnee ma woo sëñ Jili mi di sëñ Jili di ko xamal ni ko de Baye Moustapha demoon naa fa tey ji di ko wax lam ma jox ci terrain ko wax lam ma jox ci terrain moom mi mu xeeb ko far ni ma da ko waroon a dolli ndax loolu li wax moo xam ni lu yàgg la Baye Ngeñ nag du ma toog ñu naan sama xarit la bu may toog ñu naan sama xarit la ak mbaaxam rek ko waral sama maam la du sama moroom ci benn fànn waaye ak mbaaxam ak woyefam ak bëggam lu baax moo waral jaxasoo gi ba moom mii seen jiili yàlla xam na ni fu ma gis sama xaritu baay rek la may wooyee lool rek la may wooyee kon nag ñëw nañ fii tey ci Pofdy di fi si ñaan di siyaare si sàkkuwaale ñaan sunu waajur soxna ami di soxna ami mii toog nga xam ne moom mooy sunu waajur waaye ñu fekk ci bara bii nag di boole sant ñëpp di sàkku ñaan sàkku ndimbal sàkku ngeen jàppale nu ci lii ñuy def lim ñu waxit sunu xel dal na ci leer na nu ñi noonu rek la koy doxale xam naa ni li ma bëgg bu nekkoon ci ay du ma jóg fi ma toog kon loolu doy naa sant yàlla jërëjëf la di 17 kon ñu waajal ko mu ñàggee ci urne yi rek sëñ Abdou Karim moo toll noonu ci dëkk bi saa bu ñëwee rek ñëpp yëngu ku nekk bëgg a wone sa mbégte ci moom kon bu ko defee ñu teewlu kaddu yi. asalaamaaleykum wa rahmatulah. sëñ ji li nee na asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi leen di nuyu bu baax. di leen seereel di leen seereel ni. di seereel suñu waajur wii toog. di seereel suñu waajur wii toog. di ko wax jëmm yu baax a ngi nii. muy sëñ Abdul Karim Mbacke. ak Cheikh Mamadou Fadal. ak Cheikh Moustapha borom diwaan bi. waaye nag. ñoom day dañ fee fekk seen waajur. Serigne Fallou Mbacke. moom Cheikh Mad Lamine Baara. moom Serigne Fallou. muy nit ku baax. di sunu xarit. di nit ku nu fonk. te yàlla rek tax. ak jëmmi Serigne Touba sëriñ Jili nee ñoo leen di seereel sëñ Moustapha. di ko koo xam ne. nit koo xam ni. muy sëñ Abdou Karim mii toog. moom daal ñëw na fi tey. moom ñëw na fi tey. waaye saal bi miin na ko. bii mu toog mii na ko nag. saal bii mu toog tey. saal bii sëñ Abdou Karim toog miin na ko. miin na ko lool. di nit ku baax. sëñ Abdou Karim di nit ku baax. di nit ku yiw. di nit ku yiw. di nit koo xam ne. di nit koo xam ne. loo mën a ak moom ànd ak moom. loo mën a ànd ak moom ànd ak moom. am na foo xam ne boo fa yëgul. am na foo xam ne boo fa doo xam. doo xam. aalam aalam. waaye am na foo xam ne nag. waaye am na foo xam ne nag. fa la ñuy yem. foofa lay yem nag. fa la nit di yem. fa la nit di yem. waaye nit ku baax a ngi. waaye jëmm ju baax a ngi ni toog. ànd ay rakkam. man nag nee na jëmm yi ñoom. su may wax ci ñoom. da xam ne yéen ñi koy dégg. da ngeen xam ne yéen ñi koy dégg. ñu ma bëgg ngi nii man. ñu ma bëgg ngi nii. ñu ma bëgg man. waaye itam ñu ma bëgg ngi. waaye ñoom ñii damay wax tey ci bëccëg ni. waaye ñoom damay wax tey jii ci bëccëg ni. daan tey de. tey de. ku nuyoo danañ la fay. waaye tey nag. waaye tey nag. ñoom dañ maa nekkaloon fen ñoom dañ maa nekkaloon fenn. à part suba. à part suba. ku leen gis dana ma gis. lu leen kadduy yi. ndax li waral loolu. ndax li waral loolu. ñoom sëñ Abdou Karim ñoo ma ko ji. li tax ma koy def ci sama kanamu waajur. moom sëñ Moustapha mi xam na. moom sëriñ Moustapha mi xam na ni. ñoom ñii dañ maa bëgg ma. ñoom ñii dañ maa bëgg. te ñoom ñii ma bëgg. te ñoom ma bëgg. xool naa xool amuma lu leen fayee. benn occasion ma gis benn occasion. muy li ñu bëgg ñoom muy li ñu bëgg ñoom. ma fas yéene man. gar ci sama tànk tubay. gar ci sama tànk tubay. ci li ñu ne. ba bu yàlla sàkk. ba bis bu yàlla sàkk. à part suba. fii ba le 17. fii ba le 17. buy dem rek. assemblée ba. ba. ñu ànd ko ak moom ñu ngir jëmmi sëñ Tuubaa ji nee na jëmm baax a ngi nii li tax ma koy wax sama kanamu baay man sama waajur man moom rek la taam gi ma ko am du ma réeroog moom ndax bëgg gu ko bëgg moom itam bëgg gum nu bëgg ba ñun dey dañuy waxtaan ak moom waxtaan yu biire te moom moo nu ko may ci boppam. moo tax bàyyi keneen ku ñu ko mayut moo tax bàyyi keneen ku ñu ko mayut ko ci sunu waajur. ndax moom dañ ko bëgg. ndax moom Cheikh Moustapha dañu koo bëgg. moo tax may wax lii wax ci kanamam. ci kanamam. moo tax télé bi. moo tax télévision bi. ma ne ko jëlal euh, euh, micro bi. ma ne ko jëlal micro bi. ba ëllëgee ba suba. ba ëllëgee ba suba. kenn du ne di fan la nekk. kenn du ne seen jiili la nekk. loolu laa nekk lu mu nekkut nekkuma ca. léegi rek ci ginaaw léegi rek si ginnaaw am na ku ma woo jox ma président Birima Mangara ma ne ko man sëñ Fallou man sëñ Fallou sëñ Abdou Karim sëñ Moustapha ñooñu laa bëgg tey eh, eh. engagement ma ne ko ñoom dey lépp luñ nekk ca loola laa nekk te li may wax moo walaabal soxna mi sama bàjjen wala ci sama yaay mi soxna ji fay wala bal ci kër gi ndax ñoom ñoonu ko ji te lépp luñ nekk à part suba ñu ngi ci ñoom bu kenn laajati nag fu sa njiili pof di nekk fii rek laa nekk macha allah. na kàddu yi sëñ Abdou Karim Mbacké dana ci ñëwal boppam waaye dafa am kàddu yooyu daf maa wax ne naa ko jotalil ci yow sëñ Jili ak sunu waajur wi di soxna Ami nee na mi ngi doore ab nuyoom ak ziyaaraam ci sunu kilifa gii di Cheikh Mamadou Moustapha nee na mi ngi ñaan bu baax yàlla guddal aw fanam tamay ko wér yàlla sàmmal nu ko te aaral nu ko sëriñ bi nee na mi ngi fedd li cofeelam ci yow bu baax a baax a baax dina xamal ne lii lépp mi ngi bàyyi ko ci yow kon nag alhamdulilah rabbil alamin sëriñ bi nee na sedd na guy sànq bi ma koy wax léegi rek ci sa kanam la mu ne man nag ma waxal soxna Ami ne ko yëg nañ taxawaay bi yitte ji kawe na lool loo man jàppe nga ni noo man jàppe nga ni du tey nag ba nga ko commencé yàgg na boobaag tey deltu wa ginnaaw benn yoon loolu ma dégg sama jëwriñ suñ gànn naan duñ bàyyi mukk du deltu ginnaaw waaye yow foofu yi rek nga nekk kon nag xolam sedd na guy ci yow bi muy ñëw nag sa njiili euh, mi ngi mi ngi sant bu baax dégg na kàddu yi nga wax koo bëgg mu bëgg la da ngay bëgg li mu bëgg koo bëgg li mu bëgg mu bëgg la nga bëgg nit ñi nag am nañ jomi koo bañ la mu bëgg bu ko neexee loo bëgg ti mu bañ kon nag bëgg gi nga bëgg sëñ Abdou Karim naa la koo nga fi soppe lool ñëpp la bëgg kon nag noonu ci sant bu baax di gërëm kaddu yi nga xam ne moo doon bàyyi ci moom du ñàkk ndax damay damay tënk rek pour nuyoo yi nga xam ne dana woon naa ko santal euh, sunu wayjur yi naa la ko sant yow mii tamit loolu nag liñ ci déggee mooy sëriñ bi itam dafa ànd ak délégation boo xam ne lim leen du fexaj mën na ma wax ne ñii taxaw ñëpp ci délégation bi lañ bokk ñin fekk saal bi ñëpp ci lañ bokk waaye nag boo ci tuddee Serigne Fadilu Mbacke tudd ci Serigne moodu Mbacke moom Serigne Saliou Mbacke Baye Fall moom Serigne Falilou tudd ci Serigne Serigne Assane Fall euh, di kenn ci sëti maam Cheikh Ibrahima Fall tudd ci Cheikh Moustapha borom diiwaan ak euh, mboolem ñi mu àndal rek kon ak Cheikh Mamadou Lamine Bara kon day mel ne bi muy ñëw lool yi nga ne fii yàgg na fee ñëw waaye yëg na ne fa dem yëg nañ ko bu baax a baax sëñ Modou Makhtar Mbacké nag dana wax naan kullu man yëg a gii way yëg a kon nag yëg gi ngeen ko yëg loolu yi lañ ko yëgee kon nag bi muy ñëwit mboolem ñu koy jàppale ci liggéey bi ñi ci mën a ñëw ndax du ma ne ñëpp ndax ñëpp xajuñ ci saal bi waaye ñi ci mën a ñëw teew nañ teewaale ñu ci des loolu nag yëg gum leen yëg la ak bëgg gum leen bëgg yëg ngeen ni ngeen ko jàppee kon noo ngi leen sant baax leen gërëm ah, parti bi nag mi ngi noonu Serigne Abdou Karim mii de nun mat nañ ci moom seede wa maa sayit naa illaa bi maa alim naa xam nañ ko xamuk mën nañ koo seede xam nañ ni wutum koom yóbbuwu ko ci politique xam nañ ne wutu tur yóbbuwu ko ci politique ab juddoom rëy na macha allah fi mu bokk lépp teraanga la bu tëddoon doon saalu way juróom bee teraanga jiñ koy teral di ko fa fekk ndax Serigne Touba maama ko liggéeyoon ba muy jógee ca géej gi di dellu si moo waxal boppam suñu borom ne ko ijxal rujuhi ila xawmi saadatana wal tak fi naa yow ma jami xalqi niirana kuy fàggul nit ki ëllëgam nag tey ma ta wax kon bu jógee dugg ci rek am na lu mu bëgg kon bu kenn jàpp ne Serigne Abdou Karim dafa jóg ngir dugg ci politique ngir xaste lii nga xam ne moo xew léegi loolu lañ bëgg a dindi ba mu set wecc kaddu gu rafet gu tege ci xam jëf ju yiw ju tege ci xam moom rek la sëñ Abdou Karim Mbacke mii fas yéene ànd ak ñun dama ne woon du ma gi waaye dinaa la wax ñeenti yaay yoo xam ne sëriñ Moustapha sëriñ Massamba moo ko daan wax ñeenti yaa sëñ Moussa nee na nit koo seen ñeenti yaa yi war naa daje ci moom ñeenti yaa yi may bëgg a wax yow miy xool sëñ Abdou Karim goo ci gisut bu ma ne bu nee ma gisuma ko ñeenti yaa yëpp daje nañ sëñ Abdou Karim nee na yaa gu jëkk gi koo seen nee yaa gu jëkk gi nit koo seen muy dox di ñëw nanga xam ne kee di ñëw ko yiw la ay mbokk yi xool leen jëmm ji ak yiw waay nee na bu nuyee ba toog nañu xam ne kii ku ne yar la xoolal jëmm ji ni mu dale nee na bu waxee nañu xam ne kii ku yeewu la mooy ku nite la mooy ku am xam la waaye ku jëflante moom nanga xam ne ku yaatu la sëñ Abdou Karim fu waaye yem ci moom yaa fa yemal sa bopp waaye bariwul kenn ci jëmmam ci kon nag mi jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon ñu teewlu ndax mooy waxal boppam ndax wokkal ma joo gis mën naa am loxo bi mën naa bañ yegg fay xasen waaye kii xasen moom bu wokkale boppam dana laal fay xasen nan ko ak léegi nañu teewlu nag ndax ñu mën a jot ci kàddu yi na ñëpp teewlu ngir jëm sëñ Tuubaa aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wa tamkin wajal kalaami rachidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida barkeb Cheikh al Xadim ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yeesal suñu njébbal ak suñu jaayante ak suñu kóolute ci xaadimi rasuli radiallahu anhu ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di jiital ci nuyoo bi suñu wayjur yi toog Cheikh Mahamadul Moustapha ak Serigne Fadilu ñu ngi leen bu baax a baax sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax di ndokkeel ci bis bu tedd bii di bisu waliyu di bisu nitu yàlla bu ñëpp xam yàlla ñu ko yàlla fayal radiyallahu anhu maam Serigne Modou Khari di ñaan mbooleem luñ ci ñaan suñ borom nangu ko te ful ko te wàcc fi ay xéwal yu bëree bëree bëri mbooleem ku fi teew rek wala nga bëggoon a teew yàlla na la suñ borom defal fan wu gudd ba nga fekk ko déwén kenn bañ a manqué itam ak tawféex ak wér xam naa ne kàddu gi di du du du gudd. ndax ñeewante leen ci jataay bu yàgg bi te xam naa ne ci ngeen yendu waaye kàddu yi kàddu yi seedale ak cant muy ci soxna ami mi ak si Abdul Xaadir mi muy ñoom ñaar ñëpp ñu jaxasoo jaxasoo koo xam ne mën naa ne jéggi na dayoo ba daanaka ku xam xam na ko waaw soxna am yi du suñu bàjjan ñun ñaar ñëpp suñ jili itam du suñu soppe du suñu xarit kon lu may wax rek mën naa ko boole ndax jàpp naa ne lépp ci ëtt bi lañ ko jëlee muy yiw gi ak mën a defar mën a boole ñoom ñaar ñëpp dañ ko xam ci ñoom te duñu xëccoo dara loolu nag mooy jikkoy sànq loolu kon ñu leen koy seedal mënuma sori ci ñoom ñoom xam nañ ma xam bu baax a baax a baax li ñuy tudd nii sëriñ bi lu ci ni ko Sénégal di defe du suñu mbir waaye ci li mu tekki ci tubaab muy l'art de bien gérer la cité moom suñu mbir mooy nu ñu def ba penc mi jàkk kenn ku nekk da nga ci am wàll yonente bi sallallahu alayhi wa li politique di tekki dëgg dëgg dëgg kenn jiitu ko ci woon daa yoroon ay armée yor ay ministre yor ay ñu muy yónni ñuy bind ay bataaxal am diplomatie am stratégie am lépp ci biir loolu nag mooy état loolu mooy politique. ni ko Max Weber di waxee rek benn professeur benn borom xam-xam allemand nee na moo jiit état ndax laataa loolu nee na dëkk yi ñu ngi fi woon empire yi ñu ngi fi woon loolu nag ñooñ ci dugal li ñu ci dugal bi du dara lu dut topp wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kenn ku nekk responsable nga ëllëg dinañ la àtte ci li nga xam ne moom nga jàpp ne danga nga koo da koo da ko yilifoon ndanal sëriñ Tuubaa yi dañoo boole suñ bopp ci ñu ko war a sàmm Tuubaa jóg jot buñ demee sëriñ bi jóge fi 1927 dem ila rafiqil aala radiallahu anhu boobu ba léegi ñuy jàngal ay comportement yu rafet ci jaay sàkku xam-xam ci teey ci yor comportement bu rafet tant yeeg bâche yeeg ba ci li ñu def tey comportement bu rafet rek la jàngal comportement bu rafet boobu nag ñun dañ ko war a ji ci askan wi fi mu toll nii kon kon dafa am lu may tuddee la déclaration de Pofdy xam nga mooy lan mooy mbooleem ku ngay seetaan na nga jàpp ne politique jërul noono politique li muy tekki dëgg dëgg dëgg mooy ay nit ñu bokk bëgg-bëgg bëgg seen gox jàkk bëgg ab gox am ndox mu baax bëgg ab gox am tali yu baax bëgg ab gox am fu nu ndaw ñuy liggéeye li ñuy wax autonomisation des femmes règne foofu ca société booba loolu yaakaar naa ne jërut wax ju ñaaw jërut wuñ ñi sutura département de Mbacké ñun ñëpp nañ areeraat te xam ne sëñ Tuubaa lañ àndal dëkkub sëriñ Tuubaa lañ bëgg a defar violence yi judd ci politique bi lu rusul la lu triste la te àdduna jaru ko la jaru ko nekk président de la lu jaru ko dara jaru ko ci àdduna nañu suñ tubaa gën a lépp suñ tubaa nag ku gën a lépp danga jomb jomba wax lu ñaaw da nga jomba complot da nga jomba jëf damay wax ne nit ñu baree baree baree bari boo leen tegoon nii di leen jaay ci marché li ñuy wax valeur commercial ñàkk nañ ko bu yàgg ndax jaay nañ seen bopp ci wax lu bon jaay nañ seen bopp ci xas nit ngir am dara te taalibe Sëriñ Tuubaa dëgg dëgg benn ci àdduna war laa jaral nga xam ne dañ lay xasloo nit wala yow sa bopp nga jël initiative fu xas nit toroxal ko wuññi suturaam def lu bon liggéey nit loolu lépp def ko ngir lan am benn poñetu àdduna ak pal wala as koom wala loolu de kuy kuy kuy xool sëñ Tuubaa te xam ne Tuubaa nga juddoo dëkk fi mbirum àdduna mii mooy suñu àdduna ndax wala tansa nasibaka mina dunya waaye nag wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wala tabghi al fasada fil ard rik waay majj majj ji ak yëngu bi rik waay bari na lool waaye nañ ne tekk nag te geesuwaat Sëñ Tuubaa mi ngi tëdd fi mu tëdd ñun ñëpp fi ñuy defee violence matul 10 kilomètres ak diggante ak jëmmi sëriñ bi ngir lan maa ngi ci politique ba wax lu ñaaw li fu ne mu fu ne mu juge fa nañ ko moytu te geesuwaat Sëriñ Tuubaa te xam ne dara wala kenn jërut situation yi ñu nekk ci sama bopp laa koy tàmbalee. incha allahu taala du ngeen ñu dégg mukk mukk mukk ak pal tax ñuy xas suñu mbokk du ngeen ñu dégg mukk mukk ak pal tax ñuy jaxase ay diggante. te ku koy def rek xamoo li politique tekki kon li may ñaan rek mooy yàlla yàlla defal ñëpp tawfeex ubbiwaat seen i bët leeral seen i xol ubbiwaat seen i xel bañ xam ne lu baree bari jaru ko waaye la ko jar rek ko jar mooy Sëñ Tuubaa foofu rek laa ci yem kon li ñuy wax rek nañ dem ci yoon wi que le yàlla na nekk kii ak naataange asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Aliou ba léegi wax nañu wax yu bëree bëri wax yu am solo. bi ñuy avant ñuy jàll ci geneen kër. ñu wax ñu sa ak ñu ñu doon jàppale ci ci mbir yi. ñu ne diine ñore ak ñu ne dëgg ñore ñu ne woon duñu romb mukk te ñëw ñu ci ci suñu bopp ko a moo tax bi ñuy ñëw daanaka bàyyiwuñu kenn suñu délégation muy ñu àndoo ñun ci wàllu politique ak ñu ah. ñu bokk mu nekk Pastef Pastef ñu ànd moom délégation sëñ Cheikh it donte ñu fi la ñu fekk mais mën naa dugg suñu délégation ndax ci coalition Pastef ci la bokk te mën naa dalal fii gan yi Massamba Diop mais it bokk ci ñu jiite parti de ci Fall fii ci département Mbacké ñu ne moom ñu bokk nekk délégation bi magi Pastef yi it ñu ne moom ñu ànd muy Père Moussa Faye bokk ci Pastef Touba soxna Amy Mbacké mii dama naa ko débauché sax mu ñëw jàppale ñu xam naa daa teg tànk fii teg tànk fii waaye dama bëgg mu teg tànk Pastef nag bokk ci délégation Pastef ñuy yàlla yàlla may leen tawfeex benn jàpp koo taxawee jërëjëf Mbacke nii bi daal léegi nee na sëñ bi nee na bég nañ lool nee na bég nañu lool ci suñu mbokk mi ci suñu mbokk mi muy seriñ Cheikh Thioro moom na moomu sax nee na dafa baax rek waaye fii waaye fii ñu nekk ñun. moom lañ fi nekkal moom lañ fi nekkal. fu nekk moom kon point fu mu nekk moomit ñun la fa nekkal ñun la fa nekkal. mbokk la daal moo xam ne. nee na mbokk la moo xam ni. dëkk bii dëkk bii. képp ku ñu fekk. képp ku ñu fi fekk. loo nekk ñu ngi ci. waaye koo xam ne. waaye koo xam ni. dëkk bii dëkk bii. doonu fekk doonu fi fekk. loo nekk nag nekkuñu ci. fii nag tey ji tànki tayam yi. nee na fii nag sa tànki tey yow Serigne Cheikh Thioro. na xam nee na nga xam ni. am nga ay soppe. am nga ay soppe. yu bees. ndax fii moom. nee na fii moom. ci ëtti Serigne Touba la. ci ëtti ñëw gii mu fi ñëw nag. nee na ñëw gii nga fi ñëw nag. li mu bëgg moom moo ko xam. nee na yow li nga bëgg yaa ko xam. yàlla ko Serigne Touba def. ndax kii da nga ànd ak suñu xarit. nee na da nga ànd ak suñu xarit. suñuy xarit. ak suñuy xarit. muy sëñ Assane Mbacke mi. muy sëñ Assane Mbacke mu baax mi ak sëñ Xaadim Mbacke. ak sëñ Xaadim Mbacke Balla Joor nit ñu baax ñuy nit ñu baax. foo leen gis rek. foo leen gis rek. lu baax la ñuy dox lu baax la ñuy dox. moom la ñuy wax moom la ñuy wax. te ñoom liñ la yow boo teewee. nee na yow boo teewee. ak boo wuutee. ak boo wuutee. liñ lay wax li ñu lay wax. benn la benn rek la. nit ñu baax la nee na yéen nit ñu baax ngeen. yow nag nee na yow nag Serigne Cheikh Thioro. da nit koo xam ne da ngay nit koo xam ni. mën naa nekk ne jaxasoo bi bëriwul. mën naa ni jaxasoo gi bëriwul de. waaye ñi nga jaxasool ñëpp lañ jaxasoo. waaye ñi nga jaxasool ñëpp lañu jaxasool. sa baay Lamine Mbacke. nee na sa baay Lamine Mbacke. fii la toog bii ci guddi. fii la toog bii ci guddi. seede ci yow ay kaddu. seede ci yow ay kaddu. kaddu yoo xam ne ba mu koy wax. kaddu yoo xam ne ba mu koy wax. yàlla rek moo tax mu di ko moo tax ba mu koy wax. kon boog sa baay. kon nag sa baay sa waajur. sëriñ Moustapha Mbacke miy toog. sëriñ Moustapha Mbacke miy toog. na nga xam ni. ñun ñii moo nu yilif. ñun ñi moo nu yilif. lu mu nekk lañ nekk. lu mu nekk lañ nekk. te dëkk bi ko fi fekk. te dëkk bi ko fi fekk. loo nekk mi ngi ci. rek ma nga ca. kon boog. kon boog. xam nga. xam nga. li nga bëgg. li nga bëgg. bu ñaanal bu ñaanal. fas ko ci na ko ci fas. ndax yow. ndax yow. yaa ngi wax ne da ngaa jëm ci yeneen. yaa ngi wax da ngaa jëm ci yeneen. waaye nag. waaye nag. yitte ji nga dagg. nee na yitte ji nga dagg. jëm si ko fii jëm si ko fii ci Pofdy. na nga xam ne temps bi gàtt. na nga xam ne temps bi gàtt na. ak mu gudd ak mu guddu bég nañ bég nañu. nit moom. nit moom. boo ko fekk see. boo ko fekk see. mënut a def lu dul bég. te bég nañu ndax amuñ lu dul fii ndax amuñ lu dul fii xam nañ ne te xam nañu ni li nga bëgg boo ko amee li nga bëgg boo ko amee dëkk bii bi nga ko rombee bi nga ko rombee am nga fi ay naal am naal sant nañ baax te naal yooyu yàlla nga ko àggale ah mi ku bëgg la ak Serigne